yi juróom waxtu jot na ci télévision Futur Média waxtu li ci penc mi ñu dellu di rafetlu ànd bi ak gi ànd ci tey ak Mame Fatou Ndoye Mame ñu lay nuyu. maa ngi lay fay ngoone di nuyu ñëpp li ci gën a fës ci xibaaru ngoon si njàng mi kon jàpp nañu ne fi ñu toll ni mi ngi ci sukuraat te deseetul dara ci doole kuréel gii di FNES étudiants yi taxawal ko bés ak ndongo yi ñoom ñoo yëkkati kàddu yu ni mel sooke gi nag ñi ngi ko jiiñ gouvernement bi ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di syndicalistes yi fas nañu yéene taxaw nag ci yëf yi ba lu ni mel dakk fii yàpp wu ñu ni nag moo yàqu xëy na jur coow ci université Cheikh Anta Diop yi song fa ñaari resto yàqate ko gérant yi weddi tuuma yooyu naqarlu it wow doxalin tukkee kon ci ndongo yi juróomi tuuma la ñu jàpp ni moom moo tegu ci kaw Cheikh Béthio Thioune bu yoon dëggalee eh, lu ni mel cheikh bi mënees naa tëdd guuru dundam eh, giiru dundam ci kaso bi eh, ci mbir mi danañu ci dellusiwaat ci tuuma yooyu waaye it xew-xewi ayu bis bi fële ca diwaanu Thiès ni foofa la lépp xewee ñu yebaloon fa Chérif Dia tàggat yaram Mame Fatou Ndoye moo koy faram-fàccee bokk na ci li ci gën a fës turu entraîneur bi ñuy xaaral xaarandi kii tàggat kon gaynde yi diggante Metsi ak Pierre Lechante dina ci indi leexal ci kanam tuuti ni tuut ñu faram-fàccee loolu lépp laata tàggat yaram moom lañ dënkit actualité bi mam Fatou. jërëjëf euh, ngoone ngoom xanaa ñu dore kook euh, li nga xam ne moo am fële euh, ca Thiès gannaaw ba ñu tegee loxo kii di Cheikh Béthio Thioune dëkk bi nag mel ni activité yi fa amoon ñu ngi dellu si waat tribunal liggéeyam mu di ko yeesalaat population yi nag ñoom seen xel dalagul ba léegi ndax ña ngay demande force de sécurité yi ba léegi ñu bàyyi xel ci ñoom ci wàllu euh, sécurité loolu nag euh, Cheikh Anta Diop moo ñu ci indil ay leeral. tribunal régional bu Thiès xumbur tey ji ci suba nit ñi ñëw ko dem di ut si ay kayitu ay casier judiciaire ñoom di sàkku nag ci ñi nga xam ne ñoom ñooy takk der yi ñu dugg ci biir quartier yi ndax foofu nag ñu ci bëri dañ ciy def ay njombe gis nag ay oto yu def yi di wër ci dëkk bi buñ fi jógee nag dem fii nga xamante ni moom mooy prison bu Thiès fii nga xamante ne fa la ñu denc Cheikh Béthio Thioune fii de dugg bi jafe na lool ay barrière la ñu teg ci tali bi te quartier dixième de xàll woowu yépp jaar fa dina jafe ngir dem ci prison bi takk der yaa ngi taxaw geetaru dugg ba jafe mel na ni takk der yi dañ leen a jox ay ndigal ñu dellu si fii ci euh, ndakaaru gannaaw ba nga xamante ni démb étudiants yi dañ doon ñaxtu euh, di wax ni que lekk yi ñu leen jox baaxul euh, dafa sax yàqu ñi nga xam ne ñooy gérer restaurant yooyu di université ci université Cheikh Anta Diop ñoom weddi loolu di ay tuuma ba pare nag ñaawlu li nga xam ne mooy ay yàqu-yàqu yoo xam ne def nañ ko ci ñaari restaurant yooyu ñuy wooye Argentin ak Central ñoom nag tey daje nañu ak way taskatu xabaar yi ñu déglu kenn ci xam ne ñooy gérer restaurant yooyu mu ngi euh, moom mooy porte parole bi ñu déglu ko ci micro Émile Diouf ak Adama Gueye. démb ci lu tolloog juróom-ñetti waxtu genn wàll jëm juróom-ñeenti waxtu dafa am ay xew-xew benn wàll rek moo wax alors ñun nag dugguñu ci euh, tontonte wala xuloo mais li olof di wax ne weddi du ragal mais dindi tuuma la ñu bëgg leeral ci bopp nit ñi lan moo fa xew mais démb amul benn restaurant bu dul bu école normal ak bu ENA boo xam ne étudiants yi demuñu fa toj yàq dindi lañu fa nekk génne ne lu nëb la. ton jën yi ñu wax ne dañu ñëw fekk ñu surchargé 2012 bi ñun du ñu weddi loolu am na mais loolu du datu péremption fournisseur ba xëy na moom bi koy jaay xëy na moom ci boppam sax xamul ne la muy surchargé du loolu mooy wane ne jën bi baax na wala baaxul parce que jën date de navigation lañ ci def jën bi napp nañ ko at sangam. ba ba ngay mu jóge ci état sedd dem ci état ndox xëy diggante boobu mën na fa nëbbi te loolu tim da ko yóbbu ci ay laboratoire ñu xool ko Moustapha Amar lay wuyoo donc doon addu euh, ci ñi nga xam ne ñooy gérer restaurant ya fële ca université euh, Cheikh Anta ci beneen wàll muy wàllu ndaw yi ak jàng bu sooxe bi kii di euh, fédération nationale bu élèves yeeg étudiants yi ñoom nag euh, muy structure bu bees boo xam ne benn association euh, boo xam ne day yëngatu ci wàllu éducation culture euh, moo ko taxawal FNES nag lay wuyo FNES nag moom ŋàññ li nga xamante ni moo xew ci wàllu jàng bi waaye gis ni état bi daal ak jàngalekat yi ñoo tax crise scolaire bi mel ni mu mel ñu déglu kii di mu sature moom bokk ci fédération bu yees boobu ci micro Fatima Taba at si début année bi au lieu ñu dem étaler ji seen programme li ñu war a jàngee li ñu xalaat mooy ut plateforme revendicative kaas bind ko ci benn téere teg ko ci taabul autorité yi dem grève dem état bi dafa doon li nga xam ne responsa moo nekk mooy responsabilité njàngaan mi ci côté professeurs yi ci côté étudiants yi ci côté élève yi tamit donc état bi war na mën a jël ay mesures am maanaam ay matukaayam par rapport ak professeurs yi nga xam ne dañuy dem grève ci ni mu leen neexee pare grève yi ci ni mu leen neexee au moment où année baa ngi jeex ñun duñ xam fu ñu jëm professeur euh, état bi war na jël ay mesures contre ñoom parce que nag neexul ngay chaque mois nga dem jël say salaire te li tax ngay jàngale defoo ko li tax ngay ngay jël salaire bi defoo ko système éducatif maanaam njàngum Sénégal ñu ne quarante pour cent budget Sénégal mooy maanaam budget Sénégal soo ko xaaree téy xaajee téeméeri xaaj ñeent fukki yëpp ñu ngi ko dugal ci njàngum Sénégal mais lu ñu gis mooy njàngum Sénégal ci secteur yi nekk Sénégal yëpp njàngum Sénégal moo ci gën a nasax. ci wàllu xabaar euh, ba tey euh, maître mbay Jacques Diop euh, moom di dekkalaat parti wam bu muy woowee bu mu daan wooyee PPC moom nag génn ci donc coalition boo xam ne amaloon na ko PDS demu mu dajeek way kas taskatu xabaar yi wax ci tamit euh, beneen wàll muy euh, plainte bu muy menacé euh, kii di Ngouda Fall nga xam ne moo jiite woon fii Centif ndax dafa ŋàññi rapport boo xamante ni moom dañ ko ci tuumaal ni dafa doon li ñuy wax blanchiment d'argent da ko doon def ñu déglu maître Mbaye Jacques Diop. sama parti bi ma loon ci PDS en 2002 la ma waa ñaan ak waa Sénégal gépp ne ma dekkal ko mu nekkaat PPC. ñu taxaw ñoom taxawaayu parti mën a wax mën a jëf maa dem mën a ñëw may wax ne man ba may jógee conseil bi la République di CRAES di 2007 dañ ko tas dissoudre ko créer taxawal commission de liquidation pour mu cambar lañ fa def lépp ci lu baax ak ci lu bon lañ fa def lépp ci lañ fa di woon ci xaalis ak lañ fa génne ak naka lañ ko génnee ñooñu bañ paree seen liggéey seet seet la fa amoon ci oto dafa amoon ci ñi doon liggéey ci nit ci lépp bañ ca pare dañ mën a jaaraam kon nag duñ toog ba tey nag di mañ rek jéem a taxal ci loo xam li amul. maître Mbaye Jacques Diop di njiitul parti euh, PPC ngoone looloo fi gënoon fës ci wàllu euh, xabaar ci ajuma ji. maam Fatou Ndoye ñu lay gërëm di la sant danañ dellu siwaat ak yow kon ci kanam tuuti waaye dellu ci université Cheikh Anta Diop wax kon ci coow loola fa juddu ba étudiants yi doon manifesté tey jii euh, mbirum ndawal loola daal ñu ni dafa euh, yàqu te ñu leen koy servir euh, nee nañ daal situation boobu mënatul a wéy ñu joxoñ ci baaraam nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor kon restaurant yooyu ba xëy kon yëngal université Marie Christine Mendy Adama Gueye université Cheikh Anta Diop yëngooti na étudiants yi dañoo mer ba fippu li waral loolu restaurant yu mel ni Argentin centrale Self ak Claudel dañu leen yekkal lekk gu nëpp. démb si guddi dañoo dem di reer Argentin ñu gis ni hamburger yi ñu jox. dafa am sax baaxul ñu ne a ah, li nga doxul ñu xool na nañu xool resto yi lan moo fa am ñu dugg ci frigo resto yi mais li ñu fa gis doy na waar ñu xool ya jën yi xool carton yi date d'expiration bi nekk nekk en 2009 en 2009 2011 yenn yi 2011 yenn yi ñaar la ñu mën a wax ni ñoom ñooy lekk normal fii muy ESP ak ENSUD ñooñu seen restaurant ñooñu moom mooy loolu normal na li ñu étudiant yi di ñaan ñaan ñu gën leen a jox cër texte di artu autorité universitaire yi ñu recevoir leen may leen nopp. ñu nag li ñu leen di wax mooy le nouveau type d'étudiant est né étudiant bu bees bi juddu na di xeex ay kaasam di xeex ay droit wam étudiant bi du politique étudiant bi kenn du ko corrompre étudiant bi mooy étudiant bi xeex bi xeex ay wàllam ñi xam a ak NTE la tudd suñu amical yi non bokkuñu benn amical bokkuñu benn amical ñuy wax ni dans les vingt quatre heures vingt quatre heures bëgg nañ gis bëgg nañ gis Sitor non les nouveaux directeurs des du COUD ak les repreneurs des restos ñu xool ñu ñu tëral ban doxalin la étudiant bi mën a dundee parce que kat université ku lekkul bu baax doo mën a jàngi. li ñuy wax nag c'est simple nañu gars yi rencontré ñu waxtaan ak ñoom sinon sinon no weddi nag weddi gis bokk si di nouveau type d'étudiant dina wane boppam. ñoom ñi jàppee seen bopp ay nouveau type d'étudiant fas yéene nañu si xar seen tànku tuba ngir. seen nekkin gën a baax ci jamono ji nag restaurant yu si mel ni central tëj nañu seeni bunt ba jëmi jamono. mbirum Cheikh Béthio Thioune bu ñu ci dellusiwaatee niñ ko xamee tribunal correctionnel bu Thiès euh, daal na koy teg kon ci kawam ñeenti euh, tuuma démb ba daal di koy jël kon euh, denc ko kon foofa ci kaso ba ci wàllu tuuma yooyu nag bu ñu ci taxawee bu ñu demee ba ca cëppaandaw la bu dee yoon dëggal na lu ni mel daan yu mitti mën naa tegu ci kaw cheikh bi ba njiitu cantakun yi ci xibaar yi tukkee ci wàllu yoon bu dee dëggal nañ ko mën a tudd tëdd kon ci giiru dundam may mun a njaay mooy dellu si ci loolu homicide volontaire ak complicité maanaam faat nit am ñu la ci jàppale recel et inhumation de cadavre sans autorisation muy suul ab néew te amuloo ci benn ndogal la ak association de malfaiteurs maanaam ab mbootaay bu ànd ngir def ñaawteef muy ñeenti mbir yu ñu tuumaal kii nga xam ni mooy Cheikh Béthio Thioune bi ci njëkk di faat gi ñu koy tuumaal yoon da cee wax ni ki ko def mën nañ ko tëj ngir gu dundam ndax dañoo jàpp ni ci anam yu ñaaw la amee article 45 doole ci ne képp ku bokk ci crime bi daan bi dafay yam képp ak ki nga xam ni moo faat bu fekkee nag da nga jël néew suul ko te amuloo ci benn ndogal daan bi mën naa dem ci ñaar ba juróom benn weer yooyu tëdd teg ci ab amaan bu dalee ci fukki junni ba ñaar fukki junni ci suñuy koppar bu fekkee da nga yore ngànnaay te amoo ci ndogal article 302 daf ne daan bi jàpp nañ ko ci benn weer ba juróom benn weeru kaso amaan bi nag dalee ñeenti junni ba fukki junni képp ku ci jàpp dañu lay daan juróom benn ba ci ñaar fukki at yooy tëdd jàppam googu moom Cheikh Béthio Thioune ak euh, teg loxo gi nga xamante ni kon teg nañu ko loxo ba dugal ko euh, ci kaso bi daal nay euh, yëngal cees ni ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay taalibeem moom Cheikh Béthio Thioune wàccoon nañu kon ca dëkk ba fees dell ngir sàkku ci yoon mu teggi ko loxo ba waral foofa ca dëkk ba karange ga dañu ko dooleeloon Chérif Dia lañ fa yebaloon muy dellu si ci ayubés bi wuteeg yeneen yi foofa ca Thiès Thiès dëkk la bu ñëpp tegi gët ginnaaw bi nu jàppee Cheikh Béthio Thioune tëj ko ca kaso ba moom ak lu toll ci ñaar fukk ci ay taalibeem ñu taqal leen ci faat ay doomu aadama ca dëkk bee di kër Samba be balaa ñuy egg foofu nag taalibeem yi déggoon loolu lépp ñu ci bari daal di dem fa nga xamante ni mooy cees nekk seen sëla ba yoon ñoom cantakun nii am ñu dem ca tribunal ba ñi nga xamante ni ñoo gën a takku nag ñoom di jaamaarloog alkaati yi yenn saa yi di sikkar ko way di tudd turu kii di Cheikh Béthio Thioune garde à vue bi di wéy cantakun yi am ñu mer lool dem toj post ba ak meri arrondissement bu cees est ak west rax ci dolli di taal ay oto foofu ca dëkk ba waa Thiès ànd ak tiitaange ndax jëf jooju nag terewul ñii di enquêteurs ñoom di wéy di def seen liggéey kaaraange gi ñu gën koo yokk foofu ca Thiès rawatina bis bi nga xamante ni moom la waa GIGN di indi Cheikh Béthio Thioune ci kanamu juge bi nekk fii ci tribunal régional bu Thiès. fii kenn taxawaluwu fi kaaraange gi mat sëkk. ginnaaw ñaari waxtu ak fukki minute ak juróom yu Cheikh Béthio Thioune def ci tribunal bi àttekat bi jël dogal tëj ko moom Cheikh Béthio Thioune ak ñaar fukki taalibe yooyu nag ñu jël leen yóbbu leen ca kaso bu nekk ca dixième. fii kaaraange gi mat sëkk prison ba nag yegg si fa jafe lool ndax kaaraange gi ni mu matee waa quartier dixième seen ak dundin am coppite ginnaaw bi nu indee Cheikh Béthio Thioune ci kaso bii leneen kon ci wàllu euh, tàggat yaram ci la ñuy daal di ñëw léegi gannaaw bàkk bi ñuy xaarandi kon euh, Mame Fatou lu jëm ci kiy tàggat ëllëg euh, gaynde yi merci lañu wax ak le centre mais ba tey ñu ngi ñu ngi ndëgësliku. dëgg la ñu ngi ndëgësliku xam naa dina jafe sax xëy na information bi euh, teel a gën ndax comité exécutif bi saytu wàllu candidature yi fi mu ne nii mi ngi ci réunion bi waaye tamit waa fédération dañu xam leen ne daal bu ñu jëlee décision balaa ñu koy wax kenn dañu koy soumettre ñi nga xamante ni ñooy ministère des sports ak seen jëwriñ Euh, di Saliou gàkku donc euh, loolu mali Gakou tant moi donc ñoom daal ñi ngi xaarandi waaye nag euh, Salam Lam nga xam ne moom mooy entraîner US Ouakam ne na moom daal bugg na ñëpp sauf Bruno Metsu ndax day fàttali ne Bruno Metsu dafa amoon tàng ñu soxla woon ko ci Sénégal mu dem uti xaalis donc moom daal bu doon taamu Pierre Lechantre lay taamu ñu déglu nag gis-gisam moom ci micro Sayer Insa Diop ak Ababacar Camara débat bi mooy entraîneur étranger donc du nu mën a lu dul topp ci gannaaw ñi nu dénk football bi mais bu fekkoon damay tànn ci ñoom ñaar euh, du ma tànn Bruno Metsu pourquoi du ma tànn Bruno Metsu parce que Bruno Metsu bi muy ñëw kenn xamu ko Guinée la jógee 2002 mais tas ak benn génération bu baax mais wax dëgg yàlla mu def résultat yu rëy Metsu dafa préféré dem wuti xaalis Arabie Saoudite donc xaaru xaarul décideurs yi dafa dem. ci wàllu football la ñuy desandi ak euh, fukk ak ñaareelu journée Ligue bi war a tàmbali euh, suba leader bi nag di jàmbaar war a dalal kii di Dakar Université Club waaye nag jàmbaar nga xam ne. Euh, bu euh, gagné daal mun na am yaakaar euh, décrocher li ñuy wax place bu njëkk bi nga xamante ni moo koy permettre mu dem ci playoff yi ci poule B bi jaraaf suba moom it nekk ñaareel ci poule B bi war a dem fële ca Touré Kunda dimanche ñuy xaarandi ñaari match yu am solo Casa Sport di leaderu poule B bi war a dalal Yego moom mooy juróom-ñaareel ci poule B bi waaye nag match bi nga xam ne yaakaar nañ ni daal match bu am solo la mooy ñaari tali mi dalal. dalal euh, Pikine euh, fële ci stade Demba Diop euh, bu juróom mi waxtu jotee fële ci stade Demba Diop ñaari équipe yooyu nag benn point rek moo leen séparé te ñoom ñaan ñëpp bëgg nañ aussi qualifié wu ci play-off yi. Mame Fatou ñu lay gërëm dellusi ci beneen euh, xibaar doomi Guinée Bissau yi nekkee fii ci Sénégal euh, ñoom janoo lañu ñu xeex waaye taskatu xibaar yi jàmm nag la ñuy woote euh, jàmm ci seenum réew di sàkku kon ci ñooñu féete foofa ñu roy ci Sénégal ci wàllu démocratie ak ci wàllu jaar-jaar ba kon jàmm sax fii dem sax wàllu élection yépp romb na fi ñu taamu nag rado ngir daje fa ak journaliste yi Ibou Diouf yi toll ci lim bu takku fii ci Sénégal mu doon ay étudiants ak yeneen citoyens ñoom nag ñoo bokk rek ci benn association ñoom ñoo jóg taxaw rek di ñaawlu li nga xamante ne mooy xew jamono yi seen réew. ah bu ñu amee indépendance benn tey nii fi ñu nekkee nii kat ba léegi lu ñuy gis mooy euh, problème bi mu ngi continuer maanaam dafa mel ni armée yu ñu de jëloon di xeex contre tubaab bi moom la ñu delluwaat di xeex ci suñu diggante loolu nekkul lu rafet. te du avancé lool réew. gannaaw ba militaire yi nangoo nguur ga rek loolay indi ay jafe-jafe ci réew moomee doomu Guinée Bissau yi nag li ñu sàkku rek mooy ñoo ñu delloo li nga xamante ne mooy nguur ga. Euh, fi ñuy jógee euh, ba am indépendant boo ñu ko fàttewul rek donc dañuy war a yërëm population bi dañuy war a liggéey pour réew bi avancé. léegi lu ci des mooy euh, toog waxtaan. toog waxtaan seet naka la ñu mën a résoudre problème. ci àdduna bi duñu ko mën a réguler ci ci fetal nañu toog autour de table waxtaan. mouvement mi nag donte gis nañ ne communauté internationale dañu war a jàpp ci mbir mi nag wante ñu xam la ne ndimbal la te fekk loxol borom. communauté internationale war nañu def ci dimbal waaye bu fekkente ne ci biir réew mi gars yi taxaw ñu taxawaay boobu ah xam nga bis bu ne da ngay soxla dimbal ndax fitina du fa jóge waaw pour fitna jógewul nag xam nga dimbal du fa ñax mën a ñàkk dimbal dañu fekkee ci loxo borom. D'abord, avant la communauté internationale, Guinée-Bissau, c'est le premier chef responsable de la paix. ci alxames bi weesu nag njiitu réew yu bàyyeekoo fii ci Afrique sowu jant ñoo booloo fële ci Abidjan lu toll si juróom benn téeméeru militaire sax fas yéene nañ ko yóbbu fële ci ginne Bissau liñ ci jublu rek mooy indiwaat jàmm ak salaam fële ci Guinée Bissau bi xiiroo ngaayo bi ñu nemmeeku woon ci way politique ak militaire yi mën a dàkk. yow Diouf ñu lay gërëm di la sant mbokk yi dellu kon di leen euh, gërëm ne 19h ba léegi kon ñu ànd ci wàllu xibaar yi kii lii ci penc mi fii nag la ñuy daal di yem allah 20h ki xamante ni moom moo di Khalifa Diakhaté euh, dana fi teew ngir euh, yaatal lool lépp gërëm waa régie bi jërë ngeen jëf.